jigéen ndax loo leen jox ñu delloosi ko te dañ leen yàgg nax nag li nga wax présidente moo fi nekk ñit ñi dañu yàgg nax jigéen ñi ndax ñoom yaakaar nañ ni ñu mel la ñëpp mel ñun nag IMSEC dañ ne dina ñëw fekk si leen fi ngeen nekk wan leen ni partenariat bi ñuy def ñun gëm nañ ko te dinañ leen oyofal lépp pour financer leen oyofal bi njëkk mooy au lieu yéen ngeen ñëw ci banque ba banque bi mooy ñëw fekk si leen loolu mooy une banque de proximité parce que développement à la base da nga koy gëm ñun IMSEC nag xëy na li ñu juddoo ci ONG moo tax ñu am fibre boobu monsieur Fall fibre proximité nit boo ko bëggee dimbalee da nga koy jegeñ da nga koy oyofal lépp ndax ku mel ni madame Fall mën na dem ci banque waaye sama yenn jigéen ñi nekk fii am na ñoo xam ni bu ñu demee ci banque dañ leen di dañ leen di ñun nag xeebuñu kenn ñëpp la ñu noo mën ci mel xeebuñu la parce que li am solo mooy nit nekk gor nga séq ak gor loo waxanteeg moom yow nga def ko moom mu def ko moo tax ma ne madame Fall ñun IMSEC wax nañ léegi madame Mbacke wax na ko. sa collaboratrice bi nekk RTS wax nañ ko lii ñu nar def tey ji nii dinañ yëkkati chèque cent millions teg ko ci loxo madame Fall madame loolu laa ànd ak Mor Khoule ak Mansour pour ñëw nuyoo la ko fii fu la neex nag demal Sénégal im segle sa ginnaaw fii moom na mokk rumbux bala ngaa dem feneen cent millions yooyu ñu leen di jox nag man tiituma ci ndax dinañ fay ah tiituma bokk ci aawo yi waaye déglu leen rek ñaareel yi dañu bari wax torop déglu leen financement yi daal financement yi ñu leen di jox daal man duma sensibiliser awal lu ñu wax nañ ko def mais ñaareel yi fii lañ leen ko joxe na ngeen fay bu jote amul sama bëñ day metti amul sama bëñ day amul fii laay dugg ak fële fi leen ko joxe na ngeen ñëw sagal madame Fall ndax li mu def yombul bari na ñu ko bëgg amuñu ko bari nañu ko bëgg amuñu ko foofu nag ngay xam grandeur madame Fall ak monsieur Fall parce que boo nee madame nee nga monsieur Fall deux pièces d'une même mone la li ma benn jigéen doon wax fële ci kaw la quand deux verbes se suivent le second se met à jeex la yaa ko wax donc monsieur ak madame Fall loolu la quand deux verbes se suivent donc li ñu leen di ñaan daal mooy IMSEC daf fu jigéen nekk ci Sénégal danañ ko fekk fa mu nekk danañ ko financer donc c'est l'occasion de diir à à madame Mbacké IMSEC banque bu nationale la banque bu orientée vers le financement des femmes à des conditions douces et abordables subvention baaxul du continuer fonds perdu baaxul du continuer nañ la jox nga liggéey nga dugal boo jeexalee laajaat ñu dolli la ku jeexal laajaatal ñu dolli la bu doyul buñ la joxee cent mille bu doyul nga laaj cent cinquante ñu jox la loolu laaj ñu jox la ba ngeen gaare seen conteneur di ñëw loolu nag ambition la ak gëm-gëm bu leen xeeb seen bopp ñun IMSEC financé nañ nit juróom juróomi junni jur vingt cinq mille léegi day gaare ay conteneur am teg ay restaurant di liggéey doomam di fa liggéey muy tukki dem di ñëw donc war na mën a nekk fii ci jigéenu Jaksaaw donc tey ji nii mi ngi guddi li imaam ji ñaan yàlla na def barke ci jotaay bi xaalis bi ñu leen bëgg a jox yàlla na am barke ci seen njaboot yàlla na am barke seen njaboot yàlla na am barke seen njaboot feeñ ci yéen ndax di leen financé te duñ feeñ ci yéen amul solo c'est pas ça développement c'est pas ça l'autonomisation économique de la femme ñun lu ñu gëm loolu la jigéen jàppale ko ba mu dem manal boppam loolu moo am solo gëm-gëm la loolu la IMSEC gëm ci mission